sëriñ Abibu ñu ngi tuub bi jéggulu suñu kàddu yi ni yëkkati fii ci yow liñ ci jéggulu mooy ah ñëw gi fii de jàmp na bi ko soxna asu yëgeeg léegi yaakaar naa bërki démb la mu wax nun waa Touba ca kanam danañ fi ñëw tey cofeel gi am ci ak mbégte mi nu sàkk ci moom ni ko na la ko yëgal soo fi mënee teew dana doon mbégte murit di lay doon te biñ koy waxit ak coppet rek waaye xamun woon fu sa yitte toll ak fu sa xat-xat fu sa soxla toll sak oyof sak baax nga bàyyi loolu lépp ngir jëmmal suñu jataay bi kàddu googu dana rafet ñu yëkkati ko santaloo ko ci tuur sëñ Abo mi nga xam tey ah moo la fi nekkal euh, ñu sant la ci gërëm di la ci ñaanal suñu borom it yàlla na suñu borom gën a dëgër sa taxawaay kàddu yi du bari ndax murit dafa am ab jataayam nu muy doxe nun moo mënu dara amunu dara sëñ bi moom suñu lépp kon nag bu ab jataay mel nii lan nu xamee des caa war a doxe moo tax soxna Bintu mee jox ma kàddu ni naa leen leeral cellule cellule bi nekk tubaa ci la sagata boor ci tubaa ca kanam moo ko féetale soxna si fii mu nekkal ko fi ah, xëy na tubaa ci kanam jataay bi nii nu ko amee fii ba mu sosoo ba léegi mosuñu ko am sëriñ bi sagata ñu baax a fi nekk ñu am pas-pas fi nekk xëy na information bi nu war a jot comme nii mosuñu ko am dina xamal ni jabar sëriñ Tuubaa rek téewu na fi sagata ku fi man di wootee boo tourné da nga gis murit da nga gis xaadir da gis tijaan loolu ndimbal suñu borom la lu mu fi def loo xam tey boo ko doon war néew na fu mu am sa wéyjur a sëñ Muntaxa toog na fii seede loola kon li sagata am néew na fu ko am xëy na ñàkk leeral googu wala réunion yi ñàkk fi am moo waral loola euh, sang yu baax yi ñëwoon nañ fi daaw waaye bisub xasida loola dikk nañ fi waaye xëy na mbooloo mépp ñu fi doon ñëw dëkkuñu biir sagata xëy na message bi nu waroon a jot ngir yóbbaale ko euh, amul woon waaye mu mel ni jataay bi nii mu mel tey su ëllëgee dana amu soppiku soxna asu moo yor kaaye di wër di laaj waaye euh, station bi rek rusi yéen fa bàyyi ka ko yore de du sol euh, muy sëriñ Jóob mais du sol aw dàllam di wër kenn naan kaay leen dagg Touba nit ñi am pas-pas seen bopp dikk naan ko kaay daggal ma kon li fi am xëy na ñàkk leer waaye ñu jàmbaar fi nekk xëy nag suñu borom dogal lugalugul milliardaire am biir sagata waaye seen wërsëg la muy néew néew néew képp ku baax ku dugg sagata ak foo mën di bokk seen ñaq woowu dem na ca bu bariwulit te néew barkeel na kon loolu ay kàddu la mbàkke yu lay leeral. jàpp naa ne kenn ku ne muy jigéen muy góor waxuma na ñuy dund waaye kenn ku ne sa waajur wa kii sa war nga ko war nga koo joxaale sa waajur wa làqu war nga ko ci dugal war nga ko tegaaleel ngir njëriñam ëllëg kenn ko ne boo amee boo amee maam war nga ne maam lii at mi at mi ko dee maa la maa maa la maa la jox maa la daggal Touba Ca Kanam fii lii maam di kontaan lool. de même dépense yi nii de góor goo jël ab dépense ci weer nga jënd nga jël ah tey dépense wàññi naa ci ñaar téeméer jënd naa ko laa ci laa ci génn mboolem kër gi bu ñëwee kontaan. xale yi nag xale yu góor yi itam ñëpp war a cotiser ndax bis mu ne ngeen ñu ñàkk ci crédit loo xam ne lu ëpp lu ëpp 1000 francs ci at yu aw weer la 1000 francs loolu ci ci bis mu ne ñu li ñuy versé par at waruñu war war waruñu ko war war na la war naa ëpp loolu par weer ni war a versé moo war naa ëpp lépp ak ñu sax li ñuy versé li ñuy versé par at waruñu ko versé par weer war naa ëpp loolu lenn nag. loolu la waa ji waxoon ne muri li ngeen yambari ni mooy muri yi nga yambari nekk ci waxin la na ma jéggal waaye mooy muri boo xam ni doonoo doonoo joxe suñ tubaab daa wax ni ndigal nan def lii joxe 1000 francs nga mën ko ca doo ko def ca yor ñaari junni du doo ko def ci at weer wu ne mën ko am ca sët boo ko ñaan mu may la ko sa doom joo ko ñaan mu may la ko am na ko am na loo xam ne bu ko defee ay caaxaan la nan wax itam ndax lii leer nañ ñoom lii leen wax leer na ku ci ku ci dugg bis mu ne lu ñu ci def weeru jot daan la fii leen ko dugal te day njariñ la loo xam ne nii bis mu ne ñëpp ñu jariñ ci ci day dem ku ci dugg si dem da yàgg da bu ñu tooga tuuti boo duggee Touba da nga dox dox Touba Touba ci kanam moo ko liggéey mën naa dem ba génn Touba bi ñu daal ma si ñëw ci dëkk yi sëñ Touba yi nu wër yëpp kon maa ngi leen ci sant bu baax waaye nag sant sëñ bi bu ndax kat wax dëgg yàlla doyloo nanu doyloo ko xam ne ak doyloo ak baaxam rek la fab ak jukkoom jox nu waaye ñun ñàkk nañ solo lool te doyati waaye dafa fab ak baaxam ak jukkoom jox nu liggéey bi waxtu ne damay wax ne ma lépp lu la ci doy doy na ma ci jëw sax ngay def ba noppi ñëw naan ma def naa lii wala def naa la am na loo xam ne su ma suñ ko defoon ma noppi bu bëgg ko leeral sax danaan ma mëtu ko yow moom lépp loo nekk xam naa ne lu leer la lu jub la lu tegu ci loolu nag ak doyloo mënu ko weesu te lépp nag ak baaxam moom daa bëgg lu dul sëñ Tuubaa amul jenn itta ju dul liggéeyal sëñ Tuubaa léppam da koo jox sëñ bi xay na ni mu koy waxee rek ñoom dañu dañ leen a jébbale waale mu seen bopp muumuñ seen lenn waaye moom lam léppam jox na ko sëñ Tuubaa amul lu mu desal ci boppam kon nag ñu ngi koy ñaanal suñu boppam guddal aw fanam lool di sàkku ñëpp ñu ñaanal ko suñu boppam guddal aw fanam yàggal ko lool te may ko ak yoon ndax bu aw fanam guddee yéeneem ak sëñ Tuubaa li mu bëggoon lépp dana am xam nañ ne bëggam moom li mu ko ñaanee ni la ko yàlla defee la ndax nee na woon rustement bind di ñaan lu ma yàlla mayut ba noppi waaye na feeñal ga moom faaw ci noonu lay doon moom mi nag bokk na ci sët yi jug ngir feeñal liggéeyu sëñ Tuubaa boobu soo yetan tey batan tu di nax ja nabi Musaa tëj tey ji sëñ bi ñaanoon suñ boobu defal na ko taw feex mu bokk te ñooñu kon nag yàlla na yàgg lool ca ànd ak kon sëñ bi ñooy itam ñi ngi lay sant di la gërëm di la ñaana di la xamal ne ñi ngi fas yéenee topp ci seen ginnaaw nan ko daan defee di ko ne waxee ci ànd ak yéen ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi li fee ñu ngi ci gis sëñ Tuubaa ñu ngi ci te it wóor nañu ne li yéen a ngi ci sëñ Tuubaa dong kon nag sëriñ Abo nee na sëriñ Abi mi ngi lay sant di la ñaanal di sàkkit nga ñaanal mbooloo mi dëkk bi ak tund wi nee bu ñu jógee ci lii danañ waxtaanaat sunu biir xool nu ni mën a yaatal liggéey bi ci tund wi commune bi nga xam ne mooy Sagada juróom-ñaar fukki dëkk ak ñett moo ko wër mën na ni téeméer boo jël juróom-ñett fukki yi ay murid lan kon nag sëriñ bi mi ngi lay xamal ni dañ ko gën a yaatalaat barab bu ne ñu sàkk fa jëwrin ngir xam ni mooy soññee liggéey bi fa mu nekk nee na ci biir dëkk bii nag ni ko sëriñ Nasiru Njaay waxe sànq lu mel ne àllarba xam ne mbooloo mi bari dañ fiy daje nee na mi ngi sàkk bu demee ba gën a waxtaanaat ñu wutaleen ay casque yoo xam tey dañ koy teg ci jumaa ji wala ci biir marché yi fu jege marché bi fii mbooloo mi daje ñu sàkk ay ndaw yoo xam dañ fay nekkit ngir ñuy mën a wax nit ñi di soññi nga xam dañuy jóge ci àll bi ñu mën a jàpp ci liggéey boobu kon nag sëriñ bi nee na loolu xalaat bu mu ci dolli la incha allah bu jógee dañ ci waxtaanaat nu waaye sëriñ bi nee li ci ëpp solo nga ñaanal ñu rek ba li ñu yéen a sëriñ Touba. ñu ànd ko ak yow defal def ko fas la ci yéene jàppale ba nga am ci ndam léegi loo rek ma doon kàddu sa ñëboo naa ñaar kuy teew yàlla fi saaju euh, barab bi yàlla fi yàlla fi jàmm ñu fi taxawee taxaw fi taxaw sa wajur wa sa wajur wa liggéey sëñ Tuubaa liggéey bu ñëpp gis ndax ku bokk sëñ Tuubaa liggéeyal na la ndax paraxaal gi ko def rek ku bokk sëñ Tuubaa sa wàll ci te loolu moo ko def foofa kon yàlla ko yàlla fayal yokk ko leer yokk ko yërmande te daa ci te yàggal yàggal yàggal leen fi ci ginnaaw yéen itam di ñaan sëñ mag bii muy sëñ moom Cheikh Mamadou Mountakha nga xam moo lañ ci rek ci moo lañ njëkk ndax yu bëgg am ndam bu see mu def ndam loo xam ne kenn su koy mooy mooy mooy ndaw sëñ Tuubaa ndax sëñ ñu ngi ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàgg yàgg yàgg ba nim si yi ak yaakaar yi yi muy kër sëñ Tuubaa suñu ñaanu ko moom te jëriñoo ko suñu suñu Abdoulaye Sadnaan wax ji sax jëriñ ko wax waaye fekk fekk daa muccut te waxal ma wokkal maa yem rek boo xasee wax wax nga suñu wéy jur nga suñu lépp nga suñu xarit nga daa doon jiñ lépp waaye nag sa jikko dama dañu sax jàpp nañu si sant suñu wéy jur yi ci ñooy suñu bàjjeen yi mu soxna dint ak soxna ak ñuy yëpp rek ñëw ñëpp kenn gis nañ seen taxawaay ñoom ba ñoo gisee ci liggéey ne xam ne li ñu doon suñu ko waaye dañoo jaay lépp jëne ko taari bi te suñu tuwaa ci am njariñ mooy pas-pas loo am ci sëñ bi taw pas-pas amul njariñ Euh, ñoom ñooñu nga xam ne mooy tudd tudd Sëñ Tuubaa ñëpp dañu jaay la ñu amoon Sëñ Tuubaa jëlee ko taalibe ndax euh, baax mi ngi ñëw ci ab yonent yonent yàlla nooyin doom jaay soxna saa ci safaan ba dañoo bokk seen bàyyi pas-pas képp pas-pas la mooy nit Sëñ Tuubaa pas-pas la woote kuy ci mu bokk yow lépp kuy ci mu bokk yow dara yàlla dimbali na ko bi ko yàlla dimbalee mooy ay bokk duñu ko nangul ku say bokkal nangu nag alhamdulilah rabbil alamin rek suñ sant lañu baax suñu baax la ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bi nga taxaw ci massification bi di soññi bokk taalibe yi yaa boobu yàlla ngi nii rek te yaa fi nekk Sëriñ Tuubaa ëllëg ki jëm ku fi dem àjjana Sëriñ Tuubaa yow la ko laaj waaw loolu moom c'est bu leer ñii nii rek bu kenn ruur bu kenn réer ni ñëpp jofal da nga jofal ñu ngi ko bu dara réer ci loxo yàq ndax waaw ndax si waaw loolu laa noonu sa loxo dégg nga ko tund wii tund wii fukki juróom ñaar fukki kantin bi ak ñaar yii képp ku di aji Sëriñ Tuubaa yow ëllëg loo laaj yow la ko laaj moo xam murid la moo xam tiyaan moo xam lu ma doon yaa yaa fi Sëriñ waaw ku góorgóorlu waa Mbacke